Euh, ndax dafa am lu ñu jóge muy ay élection yoo xam ne ñun dañ ci nekkoon candidat ñu dem ci ci jàmm mu jeex ci jàmm mu am nag ñeenti point yu nga xam ni dañ ko bëgg a waxtaane ak mbooloo mi parce que yéene jaarale ci presse bi euh, bi ci njëkk mooy dañuy remercier le président Macky Sall président de la République du Sénégal ndax lu jafe dafa am ci suñu dugg ci lii di liste bi ndax bu fekkente ni département bu mel ni département bu Mbacké nga xam ni dañuy wax ni département bi 3 euh, millions de personnes la ñuy wax de plus. ñu war fi tànn ñetti nit pour dugal leen ci liste buñ la tànnee dugal la ci loolu sant yàlla la ak di ko ci sant nag moom président Macky Sall bu baax a baax a baax ndax dañu dëkk ci dëkk bu compliqué bu nga xam ni tànn fi jafe na kon suñu ci boolee rek quoi que sa soit amel nañ ko njukkal lu mag a mag a mag loo nga xamante ni lu war a dox suñu diggante ak moom la ñu di ko remercier bu baax a baax a baax di wax ne nag lii xew moom euh, ñun ñoo ko gisandoo ca am nañu yaakaar ni li ko waral jaarewul ci bilan xaw muñ nag ci lu mu mën a jaare mais du ci jëmmi président Macky Sall ci benn côté ndax li ko waroon ci dëkk bi moom xëy na am na lu ci des mais def na ci lu bari lu waroon mën a tax waa dëkk bi du ñu doxalee nii ñu doxalee seen diggante ak liste bi nga xam ni moom moo ko tànnoon teg ko fi loolu nag vraiment euh, mbir la mu nga xam ni mu jar a xoolaat la. mais moom président tamit ñu di ko ñaan ak di ko xamal ni ko département bu mel ni département Mbacké quoi que ce soit nekkul département bu ñuy abandonné euh, xëy na lii nag dina ci am mbetteel ndax coono bi mu ci daj ak li ñu ci xam lu bari. loolu bu jàllee mu demee nii dëgg du ko neex ndax lu ci ne da koy xool ci sa bopp mais bu mu tax mu abandonné département bi na ko jàppaat xoolaat ko ndax mbir dafa amoon mbir nag su amee bu jàllee jàngat daf cee war a am ñi nga xamante ni li leen waroon def nañ ko mu récompenser leen ñi nga xamoon ñi nga xam ne li leen waroon defuñu ko ah mu am nu mu doxale ak ñoom ca il est temps mu jël responsabilité ci département bu Mbacké ndax département bu Mbacké moom c'est comme benn affaire bu nga xamante nii rek fu waaye jaar dugg ci en tant que président nag war na mën a réorganiser waat lii xew ci département bi jël ay nit yu nga xamante ni mate nañ li mu bëgg ñu defal ko ko mu teg yëf yi ci seen loxo ndax élection yi euh, li ko yàq li ci ëpp waa këram lañ muy waa APR ndax xam nañ ci lu bëree bëri après les élections ca nit war na am dignité bu toll ni ci boppam ak fullaam ak faydaam lépp lu mu àndul mu taxaw ni lii ànduma ci doxale ci fulla ak fayda taxaw fële bañ cee dugg bu yàqoo sa yoon nekku ci bu defaroo sa yoon nekku ci mais ñëw dugg ci mbir ca li ngay wax gëmuloo ko nekk un hypocrite de première classe loolu dafa ñaaw ci kilifa te loolu ci li ñu nemmeeku ci élection yi ci la bokk ñëwul nii danga pare pour jàpp ci liggéey bi <coughs> taxaw laaj la ngay laaj ñu jox la ko nga dem tëdd sa kër loolu ci ñàkk jom la bokk bukkul ci ngor bokkul ci jom bukkul ci fulla ndax doomu aadama bi li koy jariñ moom moo ko war a mën a liggéeyal boppam ndax nit ki boo demee ba ne da nga opté def politique au contraire ka ngay jël di def ci sa poche mais danga war a génne ci sa poche def ci nit ñi ñun loolu lañ yaakaar ni mooy politique bi nga xamante ni mooy politique gu gentleman quoi mais li xew tuuba ñëpp ñoo ko gisandoo ci vraiment même yéen presse bi loolu dangeen ci war a wax ndax luñ ci xam rek xam ngeen ci lu ko ëpp ndax yéen ñu ëpp renseignement ci lii ñuy wax. waru leen ko bàyyi élection yi jàll rek ngeen bàyyi ko nii comme ren am ngeen ci part responsabilité. loolu mooy première point bi nga xam ne moom lañu bëggoon wax ñuy ñëw ci deuxième point bi nga xamante ni tamit bu am solo la ci li ñuy wax ca mu ñor ñu trop muy ñi nga xam ne dañu àndoon ak ñoom di liggéey ñu di leen wax ne am na cant gu nga xamante ni suñu diggante ak yéen am na fu mu commencé mais amul fu mu yem. ñoo ngi leen di wax nii leen fa ñu nekkoon tey lañu fa gën a nekk ambition yi ñu amoon pour le département de Mbacké tey lañu ko gën a am lii jàppewuñ ko defet ndax man gëw ma perte li ma gëm mooy compétition boo man di dem boo gañee loolu victoire la mais soo gañewul da nga ci jële xam-xam bu nga xam ne dina la servir pour suba kon amul pertement man loolu laa gëm Euh, ni ma ko gëmee nag loolu laa bëgg ñun ñëpp ñu gëmee ko noonu bañ a gëm défaite gëm ni lii victoire la ndax yéen ñëpp xam ngeen ni ñun bi ñu dugg see ci langue politique bi yàggul bu defee quatre ans ci lay yem. kon suñu ci egsee fii du dañ fi gën a nekk jantal booy wala dañu fi ëpp xaalis wala dañu fi bokk ci famille bu kenn bokkul tax ñu dugal ñu ci kon équipe bi ànd ñoo am fulla jom fayda ba tax ñu egsi fii ñu egsi kon bu ñu jombalee suñu bopp dara nañu gën a gëm li ñu nekkoon nañu gën a jàpp nañu gën a xam ni li nekk ci suñu kanam bu dee gëm nañ ni li war a développer département bi ci lañ bokk li nekk suñu kanam moo ëpp doole. et puis bon équipe bi ànd boo leen di xool ñi ci ëpp ay ndaw lañ kon tollooguñ fu ñuy amee bay ñàkk loolu ñu bàyyi ko xel ñun ñëpp kuy dem nga yóbbaale loolu xam ni dès maintenant la liggéey bi war a commencer waat. loolu mooy deuxième point bi troisième point bi mooy ñuy lancé un appel président Macky Sall lu jëm ci département bi moom ay erreur am moom ci boppam mu corriger ko ca xam ko ndax departement bu toll ni département Mbacké mun ñu fi nekk amul benn nomination bu tax ñuy wax bu fi am lu dul dañuy bàyyi ba élection ñëw. ñu ubbi ay canaux yu nga xam ne fu ne la xaalis di di génn jóge di dugg ci dëkk bi loolu nekkul lu nga xamante ni luy defar la mais day au contraire que day yàq ndax des fois dañuy jiiñ loo xam ni dafa bu bu yii continuer day nuru dëgg que dañuy jënd nit ñi or que tel n'était pas su fekkee dafa bëgg waa département bi am yeneen bët yu ñu ko xoolee dafa war a fexe ba am ay tampon yu nekk diggante moom ak ñi ci département bi. muy jël ay nit jox leen ay responsabilité bu nit ñi soxlaa ci moom mën a dem ci ñooñu mais tey jii ci tey képp ku soxla président Macky Sall ci kan ngay jaar ci département bu toll département Mbacké mën nañ wax ni amul te loolu nekkul lu nga xamante ni moom lu koy defaral ci wàllu politique la dañu bëgg gouvernement bii di taxaw mu jël ay nit ñu dëkk ci département bi jox leen ay poste de responsabilité ñu bokk ci biir gouvernement bi ñu jox ñu ay direction loolu moo mën a tax ñun njëriñ bi ñuy am di mën a wàcc ci askan wi mais doo toog rek ba élection ñëw ñu naan ay dugal nañ fi ay 400 millions ki 500 millions ki ay 1 milliard ki 2 yoo xam ni dèjà man candidat laa woon yooyu dégg laa ci am maag yéen ñi fi toog yéen a ci am pour leeral ñun li dugg ci suñu loxo 3 millions 802 fois la lu jóge ci président Macky Sall à loolu amul leneen lu ñu xam lu jóge ci moom. dégg nañ yoon yónnee waatoon na fi bon am na Fallou Mbacké Serigne fàllu Mbacké transitaire am na lu mu ko yónni woon ci ñun il nous a un million de francs lu loo xam ne dafa wax ni ci président la jóge bu ko weesoo leneen loo leen dégg du dëgg ndax dégg nañ fi ay Amadou Sall ku ne dégg nañ ko ñu ni jox nañ ñu xaalis mais pour leeral leen ni leen loolu du dëgg ñun suñuy moyen bopp lañ doon demee pré campagne suñu moyen bopp la ñu demee te xam nga ni un candidat investi ñu la joxee c'est pas sept million lan. kooku ci deux jours lañ ko lañ ciy déroulé mu jeex président tamit foofu loolu ay erreur la parce que boo jëlee ay nit tànn leen ci département bu toll ni département Mbacké war nga leen man a woo ñu ñëw toog nga laaj leen ban xalaat ngeen am ci département bi ak noo leen yoon woo yaakaar ne war nañ ci mën a jaar pour gagner élection yi tel na te le cas gisuñu ko dégguñu ko loolu mooy dem ci cacophonie euh, à part loolu ñu gis nitam yi fi nekk ni ñu doxalee. booy xool lépp lu gën a yàqal président ci dëkk bi ay niti boppam lañ ndax lépp ay lobby la yoo xam ni dangay dem ba ci biir yow mi ne ci yëf yi nga xam ni yow lu baax nga bëgg ak ngor ak jom da ngay découragé wu ci doxalinu yenn responsable yi nga xamante ni ñu ngi ci département bi ñàkk nañ fulla ñàkk nañ fay dem zéro personnalité avec saa nga ni da nga bëgg a euh, diriger département bi nga xam ne daanaka mën nañ wax ni mooy deuxième département la plus populaire ci Sénégal loolu nekkul lu sérieux bu fekkee dañu bëgg a defar département bi il faut ñu toog waxtaanaat mu président Macky Sall bu jël ay responsabilités defar yëf yi parce que d'après information yi ñu am muy lu jëm ci wàllu zone yi am na ci ñu liggéey. d'accord loolu moom danañ leen ko nangul mais ñi ci ëpp dañ doon saboté ndax ñun information yi ñu ci am après les élections ay frigo dugg na fi ay ceeb dugg na fi ay engrais dugg na fi ak yeneen ak yeneen te xam nga yooyu sax déjà ci manque de respect un leader la bokk mais lan mooy ceeb yow ay nit ñu war a dem ay élections ñu war a toog concentré wu xalaat nan la ñu war a mën a gagné élection yi ñu nekk fee ñu naan ay joxe nañ fii une tonne ceeb joxe nañ fii zone bu dool ni Daaru Xuddoos boo fa dugalee une tonne ceeb ñooñu da nga leen a yàpp bu ñu amoon fulla beneen leneen la ñuy wax ak yow mais pas ñëw di jël ay ceeb isa rek noonu la lay awalee parce que bu ñu mënee gis euh, fu mel ni Fatick am 86 nomination ca benn centre de vote bu Daaru mar naan moo ko ëpp loolu c'est un manque de respect total président Macky Sall nag su fekkente nii dafa bëgg continuer di liggéey ak ñun na xool loolu ndax ñun nag ñàkk ñu fulla ñàkk ñu fayda ba nga xamante ni dañuy continuer rek di ànd ak moom ci nii soit bu fekkee bëgg nag ànd ak ñun continuer mu xool comportement yi ñu ànd continuer soit su fekkente ni gouvernement bu bees bi moom taxaw na te Mbàkke gisu ci boppam ñun danañ jël suñu responsabilité njàmbaarteem kenn du ko werante mais nag luñ ko bëgg bëgg bëgg jàppale département bi moo ñu ko gënal moom ci boppam ndax dafay dem ñun ñu des fi ak waa département bi. kon ñoo ngi koy wax ni ko gouvernement bu bees bi muy taxaw suñu ànd ak moom ci gouvernement bi lay figuré woo su ci département bi gisee boppam on va continuer de travailler avec luy mais su ci département bi gisul boppam loolu moom beneen affaire la boobaa décision yi ñuy jël. dinañ leen woowaat ñu toog waxtaane ko ndax lii mënul continuer ca mu xool digganteem ak homme politique yi ak digganteem ak sëriñ si mu séparé ko mënuñu ñun bu ñu ko soxlaa di jaar ci ay soi-disant marabu man Mouhamed Cissé doxuma ci loolu bu fekkee dafa bëgg ñu jàppale ko ci projet yi mu nekk gëm ko buy wax na wax ak les politiques ca bàyyi bëgg di ñu jël di ñu orienté ci les marabu yu nga xamante ni majeure partie bi sont des businessmen yoo xamante ni seen bopp dong moo leen ñor ñun moom loolu nekkuñu ci loolu. on encore jeune l'avenir est devant nous kon du ñu nangu kenn di ñu tayle dafa am ñu ñu gëm topp ci ñun te ñooñu bëgguñoo dóor suñu bopp ci garab dóoraale leen ci kon na xoolaat ànd bi mu bëgguñu ñu ànd ko ak moom. loolu moo li nga xamante ni mooy point yi ñu bëggoon waxtaanee ak yéen dafa am leneen ñu ci seetlu muy ñu nga xamante ni ñoom la mooy jaar ci seen loxo ba fii ñu waxee man si candidat xaw ma ñaata moo dugg ci département bi wala lii moo fi dugg wala lii ndax loolu am na ci loo xam dinañ ci ñëwaat ak yéen mais loolu ngeen may ñu rek dinañ ci ñëwaat après mais mënuñu d'accord mënuñu comprendre ñiñ jox mooy tëdd seen i kër di xeex liste bi pour daaneel ko. ñi ne ci terrain bi di di di xeex gisuñu un franc gisuñu dara ça c'est pas du tout sérieux ca ñi nekkoon ci terrain bi xam nañ leen ñi tëddoon seen i kër di nelaw xam nañ leen ñi doon xeex pour yàq liste bi xam nañ leen ca nag loolu dinañ ci ñëw am nañ ci nag luñ ci jot a xam que ni président am na lum ci yëg mais ñun dañu nekkul ñu ñàkk fay dañoo xamante ni euh, dañuy dañuy dañuy toog rek naan président yëg na même bu yëgee dañ koy wax. dinañ ci ñëwaat loolu lu gën a yaatu incha allah euh, très franchement ñun nekkuñu fi pour di citer ay non mais yéen xam ngeen ñun xam nañ yéen seen devoir la loolu ngeen leeral ko askanu Sénégal surtout département bu Mbacké parce que ay nit ay hypocrite bu ñu nekkee ci dëkk di yàq vous la presse yéen yéen a war a génne loolu leeral ko nit ñi xamal leen ni leen ñii waa non xam nga ñun dañu ñëw pour defaral président Macky Sall nekkuñu bëgguñu nekk comme les hommes yi fi nekkoon nga xam ni seen dund yëpp ci ping pong lañ ko doon def ñun moom très franchement étape boobu nekkuñu ci ñun li ñu gëm mooy wàcc sur le terrain liggéey ki bëgg defar ku ko gis xam na ko ñi yàqu leen gis xam nañ ko le moment venu loolu dinañ ci wax. Euh, lii nag c'est le problème de Benno Bokk Yaakaar c'est pas le problème de réew mi waaw non kooku nag moom vraiment ça c'est problème kooku moom loolu c'est problème nous on est de Mbacké on est de département moom il est de Thiès ce qui l'a plus important daal on l'a pas vu physiquement mentalement moralement financièrement gisuñu ko way tout ce on a fait ñun ñoo ko def ci suñ propre moyen suñu doole bopp suñu lépp bopp li mënul nekk nag mooy boo soxlaa ñëpp jóg jàppale la bu say morom soxlaa nga toog fi nga toog. fii kenn gënu fi kenn kenn moomu fi kenn kenn yoru fi kenn foofu loolu foofu lañ ci yem après dinañ ci waxtaanaat incha allah. loolu ñëwoon naa ci dama ciy ñëwaat man seen si nii mburu nii soow mais maa ngi continuer di nekk ci mouvance présidentielle bi Benno Bokk Yaakaar euh, ba gouvernement bi taxaw suba nag c'est autre chose mais daal li wér ba wér. suñu avenir politique dans la mouvance présidentielle moom mi ngi dépendre ci ni ci ni gouvernement bi di taxawee loolu moom très franchement mënu ma ci wax mënu ma ci tontu parce que on a 36 mille voix on est d' accord les élections passées total bi lépp c' est moins de 30 mille voix élections passées département euh, commune Touba 6 000 voix la amoon nous on a arrivé jusqu'à 20 mille voix loolu dem yeneen dëkk euh, yeneen communes yi loolu moom concerné wuñu ñun li ñu gën a concerné mooy commune bii ñu dëkk élection yi ñu génn ñi fi nekkoon 6000 voix la ñu amoon nu on a arrivé vingt 20000 voix loolu mooy dëgg te loolu mooy réalité yi voilà.